ci marché Sandaga waaye itam muy ci ay lu ñuy jiiñ ci ay wàllu certificat de résidence maanaam fi mu nii sàcc yi ñooy ñooy ñooy yuuxu sàcc ci marché Sandaga dama koy xëy na gàttal ay at a ngi nii ci gannaaw ñuy xeex sànq dama fàttali ni bi ñu falee en 2009 parce que journaliste yi dama bëgg itam ñuy ñu ñu dimbali ñu ñun lu nit waaye rek ñu jël histoire bi teg ko xam contexte bi lan laaj ak lu ko waral damay fàttali ni ñun 2009 Benno Siggil Sénégal moo ñu fal maire Benno Siggil Sénégal ñun ñi newoon ci assise parti yi ñoo ko ñoo ko créer woon kon ci suñu liggéeyu parti ku ci ne fa nga fa la ñu àndoon ba créer loolu loolu moo ñu may ndam mbooloo boobu ak projet bi ñu proposé moo ñu may ndam ñu toogee biñ njëkkee ma dañu gis ne lépp luy marché ci Ndakaar waxuma plateau de Dakar yépp ci compte administratif bi dépassé wuloon presque soixante-dix millions de recettes ñu ne lii moom yéeme na te du yor à l'époque maag samay gént dama newoon maire bi man de boo ma delloo woon Sandaga rek ak Kermel man plateau rek danaa la assurer soixante-dix millions parce que boobu da jàpp loolu day firnde ni kon ñun gere wuñ ko woon woon suñu suñu en tout cas suñu sañ-sañ ñu ngi soog wax waxi marché équipement marchand bi acte trois taxawee ñenn ñi nag xam naa nañ ci tëb rek ne waa acte 3 dañ ko def pour yàq diw acte 3 amul benn collectivité territoriale boo xam ne acte 3 mayu nga dem kanam bu may wax tey ndegam ville moo tax may wax acte 3 wàññiwul seen budget bu ko yokku waaye wàññi na ay charge kon acte 3 dooleel na ko ñun de bu ñu yoroon ville de Dakar ñu wax leneen kon acte trois moo ñu may sañ-sañ ñu ne léegi on a affaire à des communes de plein exercice équipement marchand yi communes yooyu ñoo ko ci ñoom la war a dem loolu nag ñu fësal ko fépp ci Sénégal fépp ci plateau ba mu des benn bërëb muy Sandaga loolu dinaa leen woon ñuy bindante parce que dafa am commission ad hoc bu ñuy créer pour def loolu moo ci doon liggéey ñëpp bokk ci ci liggéey boobu ah man intérêt plateau moo ma fi teg ba may soppi toogaay kon fu intérêt plateau fu ñu ko laalee dama war a taxaw mooy sama mission donc ma doon xeex ne seen acte de dévolution bi baaxul am na lu des amoon na lu bëri lu des neen xool sama sama pàcc benn pàcc parce que wanewuma lépp man bugguma di weer ay mbir mais nag nanguma itam ku may tooñ day wane ni yu bëri dañ ko xultu woon ci loolu ñu delloo ñu ko waaye ñu mooy ne Sandaga duñ leen ko delloo te li ñuy sukkandikoon pour bañ loolu dañ doon Sandaga dootul marché nekkatul marché parce que Sandaga la fa woon ci marché jëlee nañ ko fi yóbbu ko fee ci champ de course depuis donc ce n'est plus un marché donc ce n'est plus un équipement marchand mënoo ci sukkandiku pour nañu delloo ñu Sandaga loolu mu nekk xeer di yéeg di wàcc di laaj ay arbitrage ba yàlla dogal arbitrage boobu nit ñi am ko parce que nit ñi dañu dem ba xool ne mais bu dee droit la rek kii bu demee ci yoon yéen sax ville di ngeen am problème parce que bi at trois amee dañu il a fallu un décret ñu recréer waat ville parce que dañu tas ville ak li newoon ci biir donc il fallait recréer ko liir leen loi bi biñ ko recréer yéen dévolution bi kenn joxu leen benn patrimoine ça veut dire que aujourd'hui vous donc yéen seen bopp vous avez ñu compléter cet acte d'évolution commission ad hoc boobu ma leen doon ñu wootewaat ko préfecture autour du préfet keroog maire de la ville mu ngi toog ak l'ensemble de ses conseils man foog naa ni ñaar nit laa fa àndaloon muy ñaar ñi feete sama droit hmm? ah yow la waaw waaye keroog lépp luy maire bu an far ak ñoom wala muy dëkk ñu ngi te maire bu wax dama ko naan waaye yow sa marché delloo nañ la wala delloo nañ ñu ne ah, ah, problème yow daal li nga am man waruma ko am wala bokkuñu du bokk doo ñuy ay commune donc après cette commission ad hoc jël na en juillet 2020 waaw lu tax léegi lañ koy coow juillet 2020 un arrêté additif bu ne Sandaga c'est dévolu à la commune du Plateau ville de Dakar telle tel telle infrastructure c'est dévolu à la ville de Dakar danaa leen ko woon bu ngeen ma mayee tuuti temps kon lan mooy coow li muy benn am na ñoo xam ne xuus nañ ci léegi ñu ngi dellu naa naan jàpp ci jéem a ngooy ci beneen beneen bi mooy ville mu am sañ-sañ surveiller li naan patrimoine historique classé da ngeen seetlu ne léegi argumentaire bi foofu lañ ko bëgg a ngooy waaye ma leen di fàttali ni Kermel moom ak Sandaga te Kermel patrimoine historique classé te Kermel dañ ma ko jox en tant que commune du Plateau ma fàttali leen ne bi may xeex pour réhabiliter parce que tey maa ngi wax dégg naa ñeen ñi naan waaw waroon nañ def nii diw muy réhabiliter tel bi muy réhabiliter loolu ak entreprise bi ko réhabiliter dafa fekk ma pare ça faisait un an di réhabiliter le service d'hygiène avec la même entreprise kon loolu duñ ma ko jàngal ni ma réhabilité def cent million ci ex service d'hygiène gisuma ci ville dégguma leen ci te muy patrimoine classé noonu laa tàmbali réhabilité école Mame Yacine Diagne bi nekk fii ci Thiong di patrimoine classé et cetera et cetera ak yéen ñi ma dégg ñuy liim parce que dañu dégg peut-être ma koy lim ci ay ay réunion kon wax ni bu dee ci yoon këyit bi ñu wone dañu ne commune de Dakar que dans les années 1920 1930 est-ce que juridiquement collectivité territoriale boobu mooy bi fi toog tey parce que boobu ñun juddooguñ ñu en tant que commune en tant que collectivité territoriale boobu ñu ville par exemple en 96 pour dugal ci 19 communes d'arrondissement bi ñu ko defee loolu en 96 98 dañu jël arrêté ne telle infrastructure telle infrastructure telle puisque léegi sañ-sañ bi ci commune d'arrondissement bi la day patrimoine bi day ànd ak moom bi ñu ville di jox près de 3 milliards 500 de charge salariale pour le sent de santé laal d'accord nañu laa acte 3 baax na waaye bu dee leneen la laa baaxul donc ci këyit boobu déjà moi je leur conteste le fait que ñu mën a nekk la commune de Dakar parce que la ville de Dakar que j'ai en face de moi dañ ko récréer fii après l'acte 3 rek rek ñun transformé ñu def ñu ay commune de plein exercice waaye même sax loolu li ñu naan un un acte grévé de charge mooy këyit boobu ngeen xool ko ngeen lire ko affectation marché communal depuis 1933 dara soppeekuwul tey loi wax de loi moo ne léegi les équipements marchands ñun ñoo koy gérer que ces infrastructures nous sommes dévolues kon foofu coow waru fa léegi beneen coow bi mooy gis naa ñoo xam ne samay mag lañu sax utiliser ay termes yoo xam ne euh, tegginewul ba pare dama naan fii surtout ñoo xam ne parfois bokk ngeen ay école nit ki mënoo ko jaay xam-xam mënoo ko jaay leneen ku ci nekk si jaar-jaar un peu de ah, kenn yoru fi le monopole li ma naan de la culture lu monopole du savoir lu monopole de la technicité et cetera Je ne veux pas m'en prendre encore parce qu'il s'agit d'individus. Mais si j'avais eu, vous m'avez <laughs> assurance que Sandaga mën nañ ko réhabiliter mais sëñ bi c'est plus simple non et c'est plus c'est ku nekk ci technique parce que man ci entreprise BTP la ma a liggéey mais c'est c'est plus passionnant mais bu ñu la prouver ni bâtiment bi 2013 dañ fa jëlee nit ñi dara ta tàkku fa ñu leen batiment bi du bés buy daanu du leen tàkku donc ñun en tant que responsabilité sécurité il faut ñu génne leen 2013 laa wax on est en 2021 ñooñu ñu bàyyi leen fee bés bu yàlla sax ñu leen di dig kenn deful kenn yënguwul ñoom si seen bopp seen biir am na ñoo xam ne xëy na comprendre ñoon sama sama doxalin. Grand Serigne de dakaar bi may présenté fii le 19 mai 2018 fii projet bi wax na leen ni maa ngi sant courage maire bi parce que man xam naa pouvoir financier yu important yi mu jàkkaarloo pour nangu lii. man naa am tey conseil naa lu tax nga fas yéene ci dugal 7 milliards 7 milliards xaj na ci samay quartier bu ma ko jëloon dugal ko ci quartier man kenn du ma daan fii kenn. mais ce patrimoine il est inestimable il faut ñu dugal ci liñ ci war a dugal ci wàllu woowu science technique ay rapport ñoo ma ne li nga njëkkoon def première étude yi ma def ay étude réhabilitation loolu moom laa njëkk a fay mais dañ dem ba ci biir ñu ne d'abord c'était fragile parce que structure moo amatul foofu liy yor bâtiment bi structurellement moo fa nekkatul te foofu boo demee ba gis benn benn weñ bu keneen moon leen ko bu leen fàtte ni weñu 1933 la kon nga ñëw bu xuuree ba ba ba den doon commencé doon euh, nu mu tuddi poussière loolu dindi rek defaat leneen waay waay mbokk yi fii bi Sénégal lañ nekk pon fédéraux lu ko gën a yàgg lu ko gën a symbolique du même ouvrage yi mais gis ngeen ni foofu ay pàcc dañ ko dindi carrément indi pàcc yu bees am de ku doon réhabilité day fekk nga mën a dindi ay pàcc tegaat yeneen à et puis de quel ouvrage nous sommes en train de parler donc na nit ñi delloo si seen xel tuuti wax ni ñun suñu projet ci Sandaga du comme ni ñu ko waxee faire disparaître un pendant de mémoire c'est vrai que mémoire c'est sensible parce que loo soppi rek dañ naan waaw mais est-ce que am na la même histoire que et cetera mais gis nga loolu mën nañ ko taawi à l'identique mën nañu delloo rek ci débat bi amoon avec des experts ci la Notre-Dame de Paris voilà c'était la même flèche au départ c'est bon voilà donc ñun plateau li ñu fas yéene dañoo xeex d'abord pour ne d'abord Sandaga ñun ñi fi dëkk dañoo bëgg mu doonaat marché dafa mu ne woon loolu ñi ñu jàkkaar loolu en réalité te amuñu sañ-sañ wax ko askan bi mosul nekk seen projet benn projet la ñu mas a am ville de Dakar ci Sandaga mooy toxal Sandaga fee ci Petersen projet bi ñu ngi ko tuddoon la rotonde mu jaral leen ñu lépp ñeenti milliards ci Société Générale mettre ko en œuvre fonctionner ak moom ba tey ñu remboursé ko ak li mu ànd ak ak charge financière te ba léegi gisuñu projet c'est ça les réalités léegi ñu dañ bëgg tabaxaat Sandaga projet bi projet ñëpp duñ ci gis li leen neex mais bâtiment bi moom moo mooy mooy mandargal Dakar moom lu ñu fas yéene tabaxaat na mu meloon à l'identique coppite yi ñu ci indi coppite technicité la parce que mille vingt 2021 doo tabax marché mu soxla monte charge te doo fa def monte charge mu soxla ascenseur te doo fa def ascenseur mu soxla peut-être des infrastructures froides te doo ko fa def donc coppite yooyu maanaam rajo yooyu moo ci mën a am waaye bâtiment bi structurellement architecturalement dañ koy tabaxaat à l'identique li ci yokkuwaat mooy ndegam léegi am nañu obligation tabaxaat ñu ne dañ ciy profité bâtiment boo tojee kay nañu wàcc ci suuf def fa parking soo ko yëkkati bâtiment bi loolu it beneen coppital la coppite bi mooy espace boobu yëpp dañ koy libérer def ko un cadre de vie projet actuel bi ñi nga xam ñoom culture rek fu ñu toogee tëgg seen guitare ak naan seen yu sedd moo leen jiiteel te ñun ñi liggéey itam jiiteel ñu ak ñi fi dëkk nañu xam ne loolu sax am na fa dana am fu ñu naanee seen i café loolu war naa mën a dalal seen xel kon ci wàllu Sandaga bañ a sore loolu lay wax wax